xam ñëw tey kër dund këram muy Liss war a jàkkaarloog nga xamante ne ni tey moom mooy doomu Parcelles bi muy Zoss muy ñaari ndaanaan yoo xamante ne nii tey ndax ne naa leen ba li nga xamante ne waa Alburax event def nañ ko waaye yamañ foofu ñu dem jëli papa booy jënd mel ne mi ndaanaan bi boole koog la tarabaxaa ko rek seen signature contrat ba nu mu mel seen signature contrat ba nu mu neexee ndax ñaari mbir yi nañ ko nañ ko neexalee kon yaakaar naa ne loolu am na solo ndax yaakaar naa ne bu dee nii ñu wane noonu si signature contrat bu dee tey ñoom ñaar noonu la ñuy bëree ku xam tara baax xam ne mbër mu bëri bëri la mbër mu bëri pexe la doole ji new fi waaye dafa bëri pexe ndax man maa daan ki nga xamante ne nii moom mooy Laurent Ndiago bi passé kon kooku mën na daan ku ne daan ki nga xamante ne nii tey moom mooy Bou ak nam ka daanee gis ngeen ko kon tey bu jàkkaaroo Papa Boy Djiné wàcc na ndax Papa Boy Djiné bu ñu xoolee si ay defet ndax tey nee na dafa ñëw war a rattrapé loolu noonu ñëw wanewaat moom Papa Boy Djiné beneen xar kanam boo xamante ne nii bokk ak ni mu daan si wàllu làmb nee na léegi majj majj ndax yaay Papa Boy Djiné bi léegi jigatu ko léegi majj majj la indi ndax majj majj boobu noonu ndax tey dina ko jig ba abadan daay man wala du ko dig ah mbokk yi loolu tey lay leer ah ñëw jëli papa bari bari mel ni mi gun a grand yoof bi papa bari bari jël ko boole ko xale bi nga xamante ne nii tey moom mooy Bou Siteu mel ni mi ndax Bou Siteu ku ko xam-xam ni ndaanaan la Bou Siteu xam ni ku xam ku ne xam ne ndaanaan la moom Bou Siteu ndax yaakaar naa ne moom moom wan ak njom wan ak ñàmbaaram ba egsi fi waaye bu maa lay jaale sa sa frère bi nga xamante ne ni moom moo génn àddina bu Siteu ndax yaakaar naa ne koroog dégg ngeen ko démb interview bi nga xamante maanaam def na ko ah moo guy gi 95 gis ngeen émission bi nga xamante maanaam def nañ ko ba buudu jooy jooy yu métti ndax yaakaar naa ni kon frère am dafa génn àddina moom tamit di ko jaalewaat bu baax a baax moom bu Siteu waaye tamit nee na tey du tee tamit bu ñàkk bañ a ñëw bëri si ndax sama frère gaañ na démb sa Espagne loolu loolu la bu Siteu wax. boole kook ay jooy yu metti moom bu des fois mën nay def benn affaire ngeen yaakaar ne day day day kaf day day day kii waaye boobu ku ko gis dëmb nga xam ne kii si dëggam la nekk ndax yaakaar naa ne dee kenn du ko kon kon kenn du ko kenn du ko kenn du ko caaxaane kon ñu ngi la koy jaalewaat bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na sarax bi yàgg seen loxo waaw mbokk yi kon ni leen ko waxee rek ba tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy gàlle liis di ko xaar mu jëm fi nga xamante ne moom mooy arène nationale mbokk yi gis ngeen ko noonu kon yaakaar naa ni mi ngi noonu gis ngeen yab nañu oto ay Baye Ndiaye li nga def lii lan la ay waa Arbouraax lii lan la ah, ndeysaan ndax bu ñu xoolee buntu kër liis bëri na ay takk yoo xamante ni mën naa ne nekk nan fi ndax parce que li moo si am solo ndax yi ñoom ñooy topp liis ba li nga xamante ne ni moom mooy arène nationale mbokk kon yaakaar naa ne làmb ji am na fépp sécurité si yoon bi ndax yéen ñi nga xamante ne nii yéen doon tiit li nga xamante ne moom mooy sécurité jàppaleen sécurité bi am na ndeysaan mi ngi noonu kon yaakaar naa ne fépp foo mënte dem si kër mbër jàppal ne boo fa demee di nga fa fekk jàmm ba si yoon bi ba ni mbër bi di àggee stade jàppal ne na nga fi fekk jàmm si barke yonent bi ndeysaan mi ngi noonu kon yaakaar naa ne liis mi ngi waaj a génn mbokk yi gis ngeen ko noonu ndeysaan ndeysaan liis a ngi waaj a génn ndeysaan ndeysaan xale baa ngi noonu doomu jàmm gën ji xale bi nga xamante ne ni mooy borom ñetti jëli xale bi nga xamante ne nii bu la daanalee benn bu leer bu la daanalee ñettay leer daan benn buleer leer nañ <laughs> ndeysaan mu ngi noonu kon gaa yaa ngi noonu di xëcc rido di ko aj ci kaw kon yaakaar naa ne léegi sa ngi waaj a génn gaa yaa ngi waaj mi ngi noonu cey lis njaago ay njaago woor ko ay njaago woor bi njaago jamaa bi la ilaha illallah lis oh oh ma yuuxoo yi ndeysaan lii sa ngi waaj génn jëla ma mbuus bu ñuul boobu noonu ñu jël teg ko si li nga xamante ne nii mooy si bagage si liis njaago yi mbokk yi laa ilaha illallah liis waa jàmm gën commencé na noo yëngu danaa ni woon tekk tekkaaral ndeysaan oxo la fa xale boo xamante ne si wàllu làmb moom liis xale moo wan ak njàmbaaram xale bi moo wane ak jomam ba mu egsi fi mu egsi ndeysaan ndax nee na tey man maay jàkkaarloog Zoss waaye tey dina am beneen xar boo xamante ne nii tey ji dina ko war a jàkkaarloog Zoss ndeysaan mbokk yi mi ngi noonu déggal ma wa jàmm gën a nen koy woyalee moom xale bi ndeysaan lu waaye mënul ne xuloo ragal dalay gaañ la ilaha illallah ndeysaan jëlama kaafa piccik boobu noonu gaay yor yor ginaar ndeysaan xale yaa ngi commencé di yëngal ndeysaan gunge seen mbër ba seen gunge seen champion seen espoir seen ndaanaan muy liis mu war a jubali fi nga xamante ne moom mooy arène nationale ndeysaan ndeysaan liis a ngi noonu di génn ndeysaan boo déggee coow li bari rek tàcc yi bari rek jàppal ni liis a ngi nee naa la liis boo ko séenee mi ñëw bu laajte ana mbër mi waaye nee naa la boo ko séenee mi ñëw bu laajte ana champion bi la ilaha illallah ay xale bi nee naa ko lépp luy topp si taalibe Bamba borom tik bi de faaya bay fal bi ay si caaya borom tarkinda borom alpana borom màgg def jar waaye nee naa leen xale bi lii topp loolu da topp ndax li Siteu di mobiliser moom lay mobiliser ñëpp a koy topp ñuy topp Siteu a koy topp ndax parce que ñoo bokk dëkkuwaay ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan jaago bi xale baa ngi noonu taxaw si buntu kër gi moom liis yor ñaari bàjjen ndeysaan xale baa ngi noonu taxaw laa ilaha illallah oxo mu ngay cëppi cëppi sa biir ndeysaan ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan lis mi ngi cëppi cëppi ndeysaan lis njaagoo ngi noonu di cëppi cëppi di ñamax ñamaxi ndeysaan dafa mel ni lis yaram bi dafa tànk oho cey xale bi xale bi nee naa leen ndaanaan la nee naa leen lis fukki penceeg ñaar yee ko wër muy espoir di ndaanaan di dafa la mel di espoir boo xamante ne nii si wàllu làmb xale baa ngi noonu sëgg na am na lu muy takk noonu si suuf ndeysaan yor na bàjjen ba moom lis ndeysaan oto baa ngi noonu oto ba def ci mbukaay yaa ngi déplacé wu oto bi xamante ne moom la lis di yéeg moom la gars di xëcc noonu ah, ndeysaan oh laa ilaha illallah ndeysaan oh xale baa ngi noonu yor na ñaari nen na ko suuf dóoraan na ko si suuf moom liis oxo am na ginaar gu mu yor ndeysaan am na ginaar gu mu yor noonu moom liis mu ngi say ay soxlaam mu ngi si ñaan ay mu ngi ñaan ay soxlaam na ko sa bopp ba saraxe na ko joxe na ko benn xale ndeysaan mi ngi noonu cay liis waaw xale baa ngi noonu doomu jàmbatul bi ndeysaan xale baa ngoogi génn am na benn kaaf picc bu mu yor noonu ndeysaan mi ngi mi ngi mi ngi picc yi mu ngi génne picc liberté picc yaa ngi noonu laa ilaha illallah oxo ay lis ndeysaan lisa ngi noonu ñi sa ngi noonu yor yor li nga xamante ne moom mooy kaafu picc bi noonu mu ngi jël picc yi mu ngi koy yëlëb ndeysaan mu ngi koy yëlëb ndeysaan ngi noonu am na benn dematu li nga xamante ne nii moom mooy ànd bu ñu teg si bopp bi noonu di ko sotti ndox ndeysaan li sa ngi noonu si buntu këram sotti nañ ko ndox mi am na benn bitéelu ndox bu mu yor noonu di ko sottee ko moom liis boobu ndox bu leer la ndax boobu nee na ndax moom mooy leeral wala déet ndeysaan waaye xale baa ngi noonu oxo laa ilaha illallah xale baa ngi noonu yor na benn pitax bu weex mu ngay ñaan ay soxlaam moom liis xolama xale bi ndeysaan jekk na sànni na sànni na pitax ba pitax ba naaw na pitax mi dem na yoonam ndeysaan pitax ma dem na liis am na beneen leket gu mu yor noonu mu am ndox noonu ndeysaan lii sotti na ko si suuf ndeysaan ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan liis a ngi noonu am na lu muy laaj am na benn mère bu nekk noonu ndax kooku yaayam la wala ndeysaan waaye ne an ay ku doom deewoo xoola ma xale bi taxawaay bi nu mu jekkee liis boo ko xoolee nga xam ne pare na si bépp côté ndeysaan cey liis ndeysaan mi ngi noonu njaaga or baa ngi noonu am na lu ñu ko sotti noonu si bopp bi noonu sotti nañ ko ndox mi si woo ndox bi si bi ndeysaan li sa ngi noonu di génn soxte noonu ko ndox bi ndeysaan oxo ay liis am na lu muy laaj noonu am na lu muy laajte nee naa la liis boo ko séenee bi ñëw bu laajte ana mbër mi ndeysaan ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu Liss Ndiago yor na benn pom noonu sànni na ko yor na ñaale pom ba sànni ko góos duraat ndeysaan mu ngi noonu nee na ko xàllal leen ma yoon bi ma won leen xale baa ngi noonu ñaan na sa dënn ñaan na ndeysaan mi ngi noonu yor na bàjjenu kooba bi moom liis am na li muy cari noonu mi ngay ñaan yàlla talal na loxo ya talal na loxo yi supporter yi nga xamante ne ñoo nekk sa kaw tribune ba ndeysaan ndeysaan xale baa ngoo ngi njàpp di dem mu ngi di dugg biir oto bi ndeysaan doomu jàmm gën baa ngi noonu xale baa ngi noonu di dugg oto bi moom liis la ilaha illallah oh! ndeysaan Thank you. génn Moussa Ngoye di génn Moussa yi li sañu jënd